yaa xadiiru yaa nasiir lil nit nag bu bëggee lu baax xër ca daf koy jaral sonn ci di ko toppatoo jaral ko yàq ay nelaw jaral ko dox ay soxlaam jaral ko bàyyi li bëggoon ngir di wut li ko ko gënal te li ko ko gënal di yàlla bu fekkente nit ki dañu wax ne euh, mu ngi tàmbalee ci almurid almuridu sadiq almurid rek moo tekki koo xam ne kii seet nga ba bàyyi adduna yàlla doo nga la moom nga bëgg nga seet nga jaar ci yoon bi nga xam ne ci nga koy amee nga nekk ca te àggagoo kooku mooy almurid benn mu dëggu wala mu ñàkk dëggu ndax li ñuy wax ne murid ñett la murid ak marid ak mariranoo daan ko di waxtaane murid ak marid ak mariranoo murid ci boppam moom bu fekkente ne ñàkk dëgguwul ak ñàkk dëggoom mooy pas-pas bu dëgërul ba nga xam ne day jubal tey ëllëg mu dëngal day sawar tey ëllëg mu tàyyeel day jëf lu baax ba mu yàgg mu yokki ndax dafa amagul kashfu gisagul li jëf lu baax di jëriñ su borom wane gu ko kumpa yi tax mu xemmem ko ba coor yi muy sonn du ko yëg kooku nga xam ne léeg-léeg day sawar léeg-léeg day tàyyeel lii aw yoonam mooy fekke jataay yi yu ñuy waxtaane yàlla jàng alquran julli ci yonant rawatina salaatu ala nabi yi nekk ci xaside yi sëñ Tuubaa yi de murid su fekkente ne saxal na jëf bokk na ci jëf yi gën jëf ju nit ki saxoo sëñ Tuubaa wax na ko ci masaalik bi wa maa yusaffi alqalba wa huwa maa quddi minhu wa in qullila qaalawul hakim jëf ji nga xam ne mooy seetal xol te xam nga ne xol moom bu ñu ko fóotee ba mu set rek jaam bi mën naa àgg fa ne mën naa am lu ne li koy sax jëf ji nga xam ne da ko koo àttan mën ko nga bañ a fexe ba jëlal ko bañ koy bàyyi ba mu yàgg nga dellu si waat ak lu mu néew néew nga saxal ko rek nga xam ne doo ko bàyyi mukk loolu dana fóot xol fekkee ne sax na ci loolu fu mu dégg lu baax mu jaral ko di wattandiku di daw lu bon da nekk murid sadak murid sadak nag bu fekkee ne te xamagul ku koy àggale ci yàlla ci fi mu nekk waaye bëgg na ko gannaaw bi nga xam ne ne dogu na ci loolu te fu mu toll day bàyyeek boppam daf koy bàyyeeg yàlla teewlu ak ñàkk solom ak doyadeem ak ñàkk kàttanam di ñaan nag suñu boroom ci biiru toroxloom di ko ñaan mu wan ko yoon wi boole ko lu ko àggale moo xam jëf lay doon di ko àggale walla jëmm ji ko àggale wala bërëb bu ko àggale ndax béréb yi ak jamono yi ak jëmm yépp bu ci nekk dañoo am ay rawxaaniya te rawxaaniya ëpp lante boo gisee ñu jëf julli ci béréb sàngam wala waxtu sàngam wala weer sàngam nga jëf te nangam moo gën nanga bi eh, jëf jooju ci béréb sàngam rawxaane yu maanaam barke yi ëppante ci béréb yi ak ci jëmm yi ak ci jamono yi moo koy waral waa ji nga xam ne nag dafay làmb yoon woowu nga xam ne dëggu na moom li mu wax dëggu la ci moom murit la maanaam ku bëgg àgg ci yàlla la du xeeb du xeeb dara ci lu baax te du tayeel du sàgg ndax dañu ne lu baax bu ca xeeb lenn ndax xamuloo fan la yàlla def sa texe ci jëf ju mu doon lu bon bu ca xeeb lenn ndax xamuloo fan la yàlla nëbb texee di nit bu ca xeeb kenn ndax xamuloo xaritu yàlla kan la ci nit ñi ba ci ba mu jeex kon ñi nga xam ne noonu la ñuy def ba jëlale naa xam gaañu baax ñooñu waaye bokk ca moo di góor góorgóorlu rek limaam al-Xasaali radiyallahu anhu nee naa feek sa roo gi sa noogaa ngi dem ak a dellu si sa mbir nga ci sa loxo mën nga baax mën nga bon mën nga texe mën nga texee di kon mu ngi aju ci gannaaw yàlla sa itte rek nit ki famille ba mu bokk këriwu ko sosu ko itte mayu ko ko dafa jeg-jeg gis ci bopp noonu rek gàttaayub nit ki ak guddaayam ab xeesaayam ab ñulaayam ab rafetaayam ab ñaawaayam loolu yoonu doomu aadama newu ci loolu mooy dogal yi nga xam ne suñu borom daf koy dogal te yoon nit néew ci waaye dafa am yeneen dogal yoo xam ne daf koy teg ci pas-pasu nit ki ak itteem dogal yooyu muy dogal nag te teg ko ci pas-pasu nit ki ak itteem nga xam ne sabab lay am kooku nu nit ki amee ité rek noonu lay amee résultat nu mu ñàkkee itte noonu lay ñàkkee résultat loolu def ma xamee jamono bu ne lu mel ne sàkku xam-xam ak jaamu yàlla gu bari ak wàllu commerce moo xam da ngay bay moo xam da ngay càmm sàmm moo xam loo mën di def ci àdduna di ko lijjanti am na ci yoo xamante ne ittey nit ki moo koy jàllale fu mu àgg moo ko fa àggale ak ñàkk ittey mit lu mu ci ñàkk moo ko xaj yooyu dafa mat di xamee. xaqiidab sëriñ bi mooy lan mooy takk xolub nit ki ci yàlla takkee ko ak yàlla takkee lisaanu nit ki làmmiñu nit ki ci muy fàttaliku yàlla ay cëram mu tënk ko ci muy liggéeyal yàlla lii mooy xaq yi dem Sëriñ Tuubaa bi mu daan dund te mooy jamono bu ne xol bu nit ki bëgg na muy tënku di muy fasu ci yàlla bëgg na aw làmmiñam di tënku ci tudd yàlla bëgg na ay cëram di tënku ci liggéeyal yàlla ñett rek mooy pas bi nga xam ne ci la daan dund